asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar di ziar waa réew mi ziar kilifa réew kilifa diina yeeg kilifa aada yi ziarewkat yi waa bitim réew. tey ñëwaat nañ encore si suñu vidéo bi nga xam ne dañ ko faral di baaxee doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi dund xëy na ay yenn tolof tolof yi si àdduna tey nag dañoo ñëwoon bi ñu jógee si wàllu cat tey dañuy dugg tey si wàllu bët lu ñuy wax bët lan lay def si doomu aadama ak bët lu muy jëriñ ci doomu aadama ak bët lan lay yàqal doomu aadama. léegi nak ci bir lolu pour ñu gëna am lu ñu leer kilifa yi nga xamne man ñom laa andal dama bëggoon léegi o xalé bi mu ñew kilifa yi wax ngeen dégg lan moy bëtt ak bëtt lu muy def ci doom adama ak bëtt lu muy wañi nit ban effet la mëna indil doom adama si aduna waaw léegi bol baangi ni comme ni ma doon wax rek damay jël kërign bi duggal ko ci bir bismillah léegi bu ko defee man damay wirdu suma wirdo xalé bi ñew léegi bu xalé bi ñewé moy muru wax ak kilifa yi ngeen deg bismillah ñewal kay kay toog aywa sukkal nga tok muurul muurul muurul ne ko man koy ziar bu baax mu mi ngi doon ziar bu baax lay ñaanal jamm ñaanal ko sa njaboot mu ne amit kilifa gi comme tero waxal nga ñu wàllu euh nu mel si doom adam ñu bëggona xam bët lan mooy njëriñam ci nit ki lan lay def si doom adam bët li ñuy wax parce que ñu bëri dañu xaw a jaxase cat ak bët ak làmmiñ comme ni nga ko waxee. nee na nag bët nag baaxul. nee na bu la topé mom mhm. mun na la lor ëlëk de mun na la fat tamit. Mhm. neena na mom moom bu jar a moytu la. Mhm. neena bu gis leen ma nga top nit ñi rek. ba bu top la. moy yóbbu nga sa bopp musiba daal. nee na nak neena nga yor dara. bët di top la di la xool. nee na na la yakal neena na tamit. nga am kër gu rafet bët yi di xool di wax mhm. nee na mën na la yàqal mhm. nee na bët moom lu jar a moytu tamit mhm. ak lu jar a ragal la nee na bët moom baaxul neen nag ñoom nag yor nañ saafara boo xamante ne saafara bët la nee na yor nañ garabu bët bi nee na boo ko sangoowee fan yi nga xam ne wax nañ la nga sangoo garab bi boo sangoo càngat bi. Mhm. dina set wecc. Mhm. nee na bët du la mënal dara. Mhm. dina la xool de. mais du la mënal dara. ndax sangoo nga garab boo xam te ne mooy garabu bët. aar na la. boo yoree dal ku la munti xool. bëtam du la jëriñ dara te baaxul. te nag loolu lañ amoon si li ñuy wax. bët daal. nee naa ok kon euh, ñun ñoo ko déggandoo ñun ñëpp euh, mbokk yi da li nga xam ne moom la kilifa gi tënk si gàttal waxoon nañ si wàllu cat tey dafa wuññeeku wax si wàllu bët bët bi nga xam ne moom lay def si doomu aadama bët lu doy waar la nga yor sa alal sax nit xool ko yenn xool yi kooku bët dugg na la te bët amul lum la mënta yàqal waaw ñu bëri bët yàqal na leen loolu nag yàlla jox dimbale nañu ba ñoom kilifa yi am nañ si saafara saafara boobu ñu si am. ñun jox nañ ñu saafara yi mooy sangat la sangat ba nga xam ne ñaari fan nga koy sangatu nga taqali ko bët définitivement si sa àdduna waaw kooku ñoom euh, yàlla dimbale na leen may na leen pouvoir bi ba jox nañ ñu ko képp koo xam ne nag mbir moomu soxal na la ba léegi boo ñu contacter si suuf su suñu ay numéro la nga si bu soobee yàlla daañu jëflante yow muy wàllu cat comme nañ ko waxee woon suñu émission bu lay passé ak wàllu bët waaw ñu ngi leen di nuyu di leen di gërëm di leen di sant ba beneen yoon si suñu beneen émission jërë ngeen jëf. Thank you